wa bayna si dalaalin ak diggante koo xam ne boroom réer la yaxtiku kook dana xotti sutura yàlla dama bëgg sama diggante ki nga xam ne dafa réer moo xam nasaraan la wala yahud wala ku dul ñoom waaye réer nga rek ci gàttal réer nga rek ci gàttal dama bëgg nga jël lu mel ni ciiraay ab baaraas rek doxali ko suñu diggante baaraas boo xam ne du xotteeku ba kookee ñëw di ma réeral ndax yàlla mën na laa defal ab kiiraay nit man koo bëtt ñëw fekk la fi nga nekk. masalan soo ko doon misaal ci xeet yi ñiy sàcc ni nga xam ne noonu la ñuy dajee yi jàmbur yi di fa jël lañ bëgg gis nit mën naa tëb sa mieux fekk la ci biir kër gi def la lu lay def mu ne waaye dama bëgg kiiraay goo may defal moom da du dajjeeku du daanu du xotteeku fi nga koy def nag mooy sama diggante ak diggante ki réer koo xam ne moom dara taxul koo jóg yitteem yëpp mooy fexe bay sàngi sutura si nekk ci jam yàlla yi nga xam ne dañ koo gëm kon ijaal defal hijaaban ak kiiraay saatirin saatiran bu ja aji suturaal laa yaxtiku boobu du xotteeku kon nga dégg ci am na sutur yoo xam ne dañuy xawee ko laa yaxtiku bii nag moom du xotteeku mu ne nag na nga ko def bay ni sama diggante wa bay na si dalaalin ak diggante koo xam ne boroom réer la yaxtiku kook dana xotti sutura ana yàlla bu seen ci xawi sutura saqiri na nga tàggatal lii ñal ma a nafsa bakkan bi wa jumlatil ada ak mboolem samay noon wasit ni yàlla nag ma dolli alxel ma xam-xam wasit ni yàlla nag ma dolli huda ak njub mu ne yàlla dama bëgg nga fexe tabaarakallahu ba sama bakkan moom moomal ko sama bopp sàmm ko bañ koo topp bakkan bi daal nag ma ko tàggatal ba moom ci boppa moo may topp waaye man duma ko topp nang ma tàggatal bakkan bi ak mboolem samay noonu nag ma leen tàggatal moo xam adduna la moo xam bànneex la moo xam saytaane la waaye ñoom ñëpp ak mboolem nit ñi nga xam ne ay noon lañ waaye tàggatal ma ñëpp rek ci gàttal bu ne wa jumlatul adda ñett ñee nga xam ne ñoo bokk ak bakkan bi ñu koy wax nasaadu da ciy bokk waaye ak mboolem noon yi rek moo tax mu ne ko nag ma tàggatal bakkan bi ak mboolem samay noon samay xam-xam nay gën di yokku sama njub nay gën di yokku ndax xam-xam day dooleeg waxul rabbi siit nii man la alquran wax. njub itam day dooleeku moo tax ne ko saqiri nanga nga tàggatal na nga yeewal na nga tàggatal li ñeel ma sa bakkan bi wa jumlatil ada ak mboolem samay noon wa sidni ya te yàlla nag ma dolli al ilma xam-xam wa sidni ya yàlla nag ma dolli huda ak njub dumma na nga fu aadi sama xol liri daa jëmee ko ci ngërëm wa rahmati ak yërmande waxab yàlla na nga may lii ñeel ma wudda jamihel ummati cofeelug mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow sama borom subhaanahu wa taala dama bëgg sama xol bii waxtu ne nay dajeeg rek sa ngërëm ak sa yërmande xol bi daal sa ngërëm na ci nekk ak sa yërmande ngërëmal yàlla ci xol lay nekk yërmande yàlla ci xol lay nekk gis nga nit sax bu amee ñeewantu ñeewantu ko ma nga nekk ca xolam bu kontaanee kontaan nga ma nga bàyyi ko ci xolam moo tax ne sama xol bi daal sa ngërëm na ci nekk ak sa yërmande waaye dégg nga ma bëgg mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga naa am cofeel ci xeet yonent yi ma bëgg leen ñoom it ñi bëgg ma loolu lay wudda jëmeel umma nga xam ne sëñ bi ni mu bëggee xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañ koy bëggee kon du ma na nga tàppe fu aadi sama xol lii di daa jëmee ko sa ngërëm wa rahmati ak sa yërmande sama xol daal sa ngërëm ak sa yërmande képp na ci nekk waaye waxab yàlla na nga may lii ñal ma wudda jamihal ummati cofeelug mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp nañ ma sopp yow yàlla ba tey atima nang ma matalal kullama lépp loo xam ne nawaytu yéene naa ko min huda ci ak njub ci ak njub xalban ci jëmm ci saahir wa xalban ak ci baatin te mooy roo bi jaahi ahmada ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ahmad yàlla njub gii de lépp lu mu ci yéene rek dama bëgg nga matalal ma ko ndax jàmm bi moom toujours rek la am dëgg-dëgg waaye matal ga lam yéene pour mu mat moom amul kàttanu matal ko yàlla rek moo ko ko mën a kàttanu moo ko mën a kàttanu pour mu matal ko moo tax mu ne nag lépp lu ma yéene ci ak njub yow yàlla laay ñaan nga kàttanu ma matalal ma ko la ma yéene moo xam mbiri saahir la wala mbiri baatin xalban mooy saahir rek xaalaban mooy baatin mu ne li ma yéene daal ci njub ci saahir rek baatin yépp ci jëmm ak roo yépp yàlla dama bëgg nga defal ma yépp mu mat sëkk ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne ijulub na nga ñoddi lii ñeel ma ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu aada kulli muslimin xolu bépp julit bi nasri ci ak wituwaar bi nasri ci ak ndimbal wëlhu bi ak sopp wasabit te yàlla na nga saxal sama ndëggu ba du yàlla xoli julit ñëpp dama bëgg nga ñoddi leen ci barke bi yonent bi ñi ñëw ci man mu nekk nasru ci man ndax bokk na ci liy tegtal nit ki am na nasru mooy am na jamono kenn bëggut la woon mais sax gi nga sax ci dëgg dem nga nag ba nit ñëpp xam ne yow yaa nekk ci dëgg ñi mujj nag topp la boo xool sunu mag ñi ñu ñëw seen ganaaw ñëpp dañoo xam ne dégg nga dañ leen jàngal seen histoire ñi xam ne ñii kat lii lañ fi nekkee woon nii la leen nit ñi bañe woon ñoom ñëpp gis nga tey dañ leen bëgg nasru ñoom ña nga ca barsàq am nañ nasru ba léegi ci na ñi nga am nasru jullit ñi leen di bëgg ku juddu bëgg leen gis nga ko loolu mooy fu fuaada kulli mustaqim wala fu fuaada kulli muslimin bi nasri yàlla dama bëgg ijulub na nga ñoddi lii jëmee ci man bii ci barkeb yonent bi fuaada kulli muslimi fuaada kulli muslim mooy xolu bépp julit bi nasri ci ndimbal loolu moom ndimbalug yàlla rek moo ci moo ci mën a dugg julit ñëpp seen xol jublu la loolu ndimbalug yàlla rek moo ci mën a dugg moo tamit nag ma ñoddil ci barkeb yonent bi xolu bépp julit bi nasri ci ak ndimbal wal hubbu ak sop wasa bett yàlla nga sax mi sama ndëgg mooy sama ndëgg daal na sax ci jëf yu baax yi rek bu mu tarxes mukk di ko wàcc. dégg nga waaye bi nasri wal hub bi yàlla daal nag ma defal ndimbal rek ak soppal ma sa bopp rek ñoddil ma ci barke bi yonent bi xolu bépp julit su ko nekk su ko defee mu nekk bi nasri ndimbal ci man walu bi ak ak sopp nga xam ne yàlla loolu ku mu defal mooy dimbale na la mais bëgg na la mooy xërtal jaam ñëpp ñu sopp la waaye wasabri yàlla na nga saxal xadami sama ndëggu sama ndëggu mooy lam ca dama rek mooy bu mu tarxees in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum iqhaar notalal lii ñelo bi ci barkeb yonent bi yaa rabbi yow sama borom kulla mujrim bépp saay-saay bépp kàccoor bi raw di ci tàggat ko bi raw di ci raw du mooy tàggat wa tasqiri mooy tàggat ba tey rek xaysu antami ak fu mu man di bokk fu mu fi man di askanoo yàlla ci barke bi yonent bi laa lay dellu ñaanaat mooy képp kuy mujrim koo xam ne ab saay-saay la def katu bàkkaar yu mag la donte ab julit la sax yàlla notal ma ko defal ma ko rawdu ak tasxiir nga xamee ne ay ciram yëpp dañ naan mott na teg xolam ci boppam dafay nooy dafay mujj nooy nepp ba nga xam ne du mën a lor du ma mën a teg benn tiis du ma mën a teg benn jafe-jafe ak kooku nag fu man di bokk rek julit lam askan wi la bokk ak ku man di doon rek wala ab yéeféer la wala yahut la ak nasaraan la tàggatal ma rek laa wax <laughs> ci moo tax man ko iqaxar nootala lii ñelo bii ci barke bi yonent bi yaa rabbi yow sama borom ku la mujrim bépp saay-saay bépp kàccoor bi raw di ci tàggat ko wa tasxiiri ak tàggat ko ba tey xay su ant mi fu fi mën di bokk fu fi mën di askanoo julit laam ab yiifir laam yàlla daal koo xam ne ndax mujrim dana nekk ab julit waaye fekk la koy waral nag mooy mooy yàlla gu bëri def bàkkaar yu mag yi ba digaal xone ulaakumul kafratul mooy koo xam ne dafay mooy yàlla ci ay cëram donte mën naa nekk sax ab julit waaye mu ne mu ne na ko def raw di tasxiir ko mooy tàggatal ma leen ak fu ñu mën a bokk julit lam ab yéefar lam dal waaye daal mujrim la day def bàkkaar rek yàlla notal ma ko ci barkeb te bi tàggatal ma ko. xam nga not ak tàggat bokkunu not not da ngay dégg sax ñeent ci sëriñ si di ko wax te ñu bari sax xamuñ lan mooy not am ñoo xam ne ba tey xamuñ lan mooy tasxiir tasxiir moom foo ko dégg mooy lu dëgër. ñi tàggatal la ko ba mu nooy loo mëntu jëfandikoo ñi tàggatal ko ba nga mën koo jëfandikoo. masalan borom kër gi dem ci sëriñ ba ne ko damaa bëgg nga tas xiiral ma sama soxna si ba mu may topp kooku gis nga ko dañ koy def. loolu mooy rawdu ak tasxiir nga xam ne soxna si day mujj nooy di topp borom këram te bu njëkk daawut ko woon def bu fexe ba tasxiir not nag mooy koo xamee ne moom lu mu bon bon ci sa waay ci sa waaw rek ci lay sukkandiku loo ko wax rek loolu lay def ndax noot nga ko ba nëppi loo ko wax rek moo ma ne nag man notal ci barke bi yonent yi bépp kàccoor ci tàggatal ma ko ak fu fi man di bokk fu fi man di askono jullit lam ab yifir lam nga bàyyi xel sëñ bi nag ñim ñaan yàlla tàggatal ko notal ko mooy ñi nga xam ne mujjirim lañ leen ndax ñooñu ñoo mën a ñoo ñoo mat a not nak noonu da nga gis koo xam ne mujjirim la masalan nga fexe ba tàggat ko def loo xam ne danga koy not ba dootul nekk mu jëm def jëf ju baax loolu baax na am na ci xeetu not yoo xamee ne baax na tasxir yoo xam ne baax na xeet yooyu baax na waaye nag dem fekk soxna jàmbur tasxir ko wala nga not ko loo xam ne daal yow moomoo ko loolu moom amul benn njëriñ safara rek la lay jëmee mais nag ab tooñkat wala sa doom nga bëgg mu jaar ci yoonu siraat bi tam nga fexe ba tasxir ko mbaa not ko loo xam ne du ko lor loolu moom lislaam bañul ko yaa rabbi yow sama borom sël yàlla nga julli suma sëlim topp sëlmal sarmada faw ala wasilati ci kaw sama wasila ba ilayka jëm si ci yow ahmada mooy ahmad nabi ka mooy sob yonentu allah ci mooy ki nga xam ne nafa jëlee na fi dàq na adalaala ak réer waab yàlla nga maye lii lii ñeel ma bi jaay yi ci daraja yonentu bopp kamala ak mat sëkk yow sama borom yàlla nga jullee ko sëlmal faw ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam mi xam ne mooy sama wasila bi dox sama digganteeg yow turam nag mooy ahmad mooy sa bi nga xam ne moo ñëw xeex lu ñuy tuddee ak réer ba dàq ko fi saxal fi ak dëgg yàlla na nga may nag ci dara jàmm yàlla na nga mayee ci dara jaay yonent lu ñuy tuddee alkamal ak mat. ajib nag ma nangul bii ci barke bi yonent bi idi yi samay xasaayid yëpp wa barika yàlla na nga barkeel fii ci xasaayid yëpp. wasayir nii yàlla na nga ma mujjal man borom Tuubaa yàlla na ma mujjal sa ay daan may aji texe naasika nekk ab jaamukat yàlla. yàlla ci barke bi yonent bi laa lay ñaan mooy sama xasaayid yëpp na nga ko nangu barkeelal lépp xasaayit yàlla nangu na ko barkeel ko moo tax ku koy jàng am ijaaba yàlla barkeel say mbir yàlla nag ma def ma nekk jaam boo xam ne ku texe laa nag ma mu jël daal ma nekk jaam boo xamee ne ku texe laa nekk jaam boo ne fu mu nekk lu mu texe texe dégg nga waxtu ne du sàggane jaamu yàlla ndax jaam dana texe mais sàggane jaamu yàlla far texe di yam xoolaahu may sax wuy sibutu indo umul kitab fii nag mu ne wasayir nii sax dan naasika loolu mooy lu gën a loo texe texe ke rek na nga gën a bëgg jaamu yàlla ajib nang ma nangul jami xama mboolem la nga xamee ne katabtuhu katabtuhu bindoon naa ko ca la wama ak lépp loo xam ne ak tubuhu xawees naa ko bind lépp nang ko nangu di ci darja yonent bi muhammama nangu goo xam ne nangulu lu matale matale mooy lépp lu njëkk laak lu teew laak lay ñëw lépp suñu borom nangu ko moo tax mu ne yàlla lépp loo xam ne bindoon naa ko jamee maa mooy lu woy lu wëyoon bu yàgg mu bind ko moo xam gannaaw géej la lépp nga wala lu jiitu géej ga wala ca géej ga dégg nga katabtoo mooy lépp loo xam ne bindoon na ko daal te boobu demagul ci géej ga moo tax ne lépp lu ma bindoon daal ak loo xam ne xawees naa koo bind te bindaguma ko ci barke bi yonent bi daal nag ma nangu lépp waaye nangu gi nag bu mu nangu xaas ndax mënoon naa wax nangu xaas yàlla nangul xasida géej gi ak yi ci gannaaw géej gi waaye njëkk géej gi sax kooku da cee bokk moo tax mu ne mo muhammama mooy nangu xam ne dafay matale mboolem xasida gu sëñ Tuubaa bind rek dégg nga xamal ne xasida googu suñu borom nangu na ko def na ci barke kon ku koy jàng nga dégg nga dégg ci ne dafay am ijaaba dafay am barke. mun na xëywee nga aliye ci man al yawma tey ji yi karim yow mi aji tedd ji bi jaay ci darja yonent bi jumlatama aroomu mboolem lépp loo xam ne doon naa ko sàkko yàlla tey jii kat xéewalee nga ma yow muy aji tedd ji nga xam ne balaa nit dala ñaan sax nga may ko tey jii kat ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nga ma xéewalee lépp lu ma doon wut rek ci laa ko am tey jii sëñ bi nee na lu doon wut rek tey jii ci laa ko am ci barke bi yonent bi moo tax mu ne mun na xiwi nga ali ci man al ma tey jii yaa karimu yow mi aji tedd ji bi jaay yi ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam jumla tama mboolem lépp loo xam ne rek aroomu daan doon naa ko sàkku yaa bi yow sama borom xab na nga may lii ñeel ma bii ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mun naa yaa lu ñuy tuddee samay mbébét sama mbébét yëpp nag ma ko may wasuux yàlla na nga màngal lii jëmee ci man fii daaree ni adduna ak alaxira busra yaa samay mbégte yàlla ci barke bi yonent bi la ñaan tey jii lépp lu may mbébét rek tabaarakallahu yàlla nag ma ko may ci barke bi yonent bi waaye lépp loo xam sama mbégte la na ko màngo jox ma ko adduna ak alaxira yaa rab yow sama borom may lii ñeel ma mun naa sama mbébét bii ci barke bi yonent bi wasux yàlla na nga màng lii jëmee ci man fii daari ne ak alaxira bu sora yaa sama mbégte man borom Tuubaa sëriñ bi nag léegi mu nekk ci nuun gu mujj gi ndax dafa indiwaale amiin gi ndax amiin gi ci faatiha la bokk wala daaliina amiin yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yéen ñi nga xam ne yéenay nekk sama gannaaw su ma kàbbaaree na ngeen kàbbaar su ma ne wala daaliin na ngeen wax faqulu wax leen amiin kon amiin ci faatiha lañ koy boole. moo tax sëriñ bi bi mu tënkee xuróof yëpp ba ci wala daaliin muy nun googu dafa indiwaat ba tey amin wala daaliin mooy nuun ak wala daaliin ga mooy nabiika la nafa dalala wali yax bi kamala amin gi dafa am ñaari alif ñaari alif yooyu nag moo tax mu ne ajib bihi gis nga ajib bi parce que amin li muy firi mooy nangu ñaan ki tàllal sa loxo moo xam dafa am kuy ñaan nga tàllal sa loxo naan amin moo tax ñaari alif yëpp bi mu leen tàmbalee ajib la leen tàmbalee ajib bihi xasaidi wa barika waaye ajib jamiha ma katabtu wa ma gis nga ci ñaari alif yooyu ci la ñaane lépp lu mos a bind yàlla nangu ko ci la ñaane sunu borom nangul ko xasaa itam yëpp te def ci barke. ci la ñaane sunu borom nangul ko xasida yi jiitu géej ga ak gannaaw géej ga yi nekk ci géej gi ci ñaari alif yooyu benn bu ci nekk bim mu jëlee alif ga ajib la ko tàmbalee ajib bii xasaa'idi wa barika fii ak ajib jamii'a ma léegi nag nuun gi nga xam ne moo mujj ci amiin mooy naqdiya tamim wal tusalli bi salaam alayhi bil ali wa ahsin lil qitam mu ne naqdiya sama naqdu mooy li nga xam teppi maanaam loo xam ne daal dama ko signé nag yàlla kóllëre ba noppi yàqu ko wala mataluma ko naqadiya samak teppi naqadiya samak firi tamim nang ko matal lépp loo xam ne dama ko firi te waroon koy def ci lu baax mbaa ma def ko ci lu baax ba noppi yàqat ko firi ko yàlla tamim nang ko matal wal tusal yàlla na nga julli bi ak sëlmal ali ci yonent bi bil ali moom ñoñam ña wa ansin te yàlla na nga rafetal lii ci man alxitaab mujj ga yow sun boroom lépp loo xam ne dama ko defar ba noppi yàqaat ko mbaa ma waroon koo def te defuma ko loolu mooy naqadi rek yàlla yow mi nga xam ne yaa mën a matal jaam bi moom mantu mat mat man mantu matal jaam bi mën naa dem ba defee ne lépp baax na fekk am na lum yàq loolu mooy naqadi tamit mu ne yàlla nag na nga matal loolee nga xam ne defe naa ne def naa ko ba noppi te fekk am na lu ma ci yàq mu ne na ko matal waaye yàlla na nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ci waa këram te yàlla nag ma dollee rafetal sama muc yàlla naa mujj gu rafet. naqadiya samak firi tamim na nga ko matal lépp loo xam ne firi naa ko dama ko def ba noppi firi wat ko mbaa ma waroon ko def te def ma ko yàlla na ko matal wala tusulee te yàlla na nga julli bi salaam gàndu ko sëlmal ali ci yonent bi bil ali ak ñooñam ñëpp wa ahsin te yàlla na nga doolee rafetal lii ñeel ma alxitaam mujj ga maanaam daal yàlla naa am mujj goo xam ne tabaarakallahu mujj gu rafet la ku ne xam ne ne mujj gu rafet rek tabaarakallahu mooy li am njëriñ mu ne allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan nag sëli yàlla nga julli ala sina ci kaw sunu sang bi wa maulana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad wa sallim yàlla nga salman ali ci muhammad wa ali ak ñoñam ña wa sahbi ak sahabaam yëpp war suxni yàlla nga ma wërsëgale bi jaay yi ci dara jaay muhammad barakatal basmalati barke bi nekk ci bismillahi rahmaani rahim wa ci yàlla na nga wuññi xam mi sama njàqare dégg nga waxam mi ak sama njàqare ba tey biha wan fa ani yàlla na ma jëriñee fii daarin adduna ko àllaaxira bi ci xasida gi yow sa borom yàlla na julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sunu sang di sunu kilifa turam di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram saabaam yëpp sëlmal ci ñoom. yàlla na ma wërsëgalee ci dara jaay Muhammad moomee barke bi nekk ci bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim borom xam-xam yëpp d'accord nañu bokkul ci Fatiha moo tax suñ bi tënkaaliwut ko gis nga bi muy xasida gi lépp gisoo ci mu indi ci bismillahi rahmaani rahim di ko ko tënk kon bismillahi rahmaani rahim moom moo fi moo fi njëkk sax alquran bismillahi rahmaani rahim moo fi njëkk alquran kon loolu moom dafa ñëw rek ngir nekk iftitaax maanaam caabi joo xam ne dañ koy tije saar yi waaye bokkut ci su ko defee nag mu ne yàlla nga wërsëgalee ci barkeb yonent bi gis nga waxut sax wërsëgal ci man barkeb Fatiha ndax barkeb Fatiha moom yàlla wërsëg yàlla wisaara na ko ci kawam ba nëpp kanaa barkeb bi nga xam ne kay mooy basmala nga xam ne dafay ànd ak Fatiha te ba noppi te bokkut ca moo tax waxut war suxni bi jaayee barakatal fatiha déedéet dana barakatal ti ndax xam na ne fatiha moom ñaan na ci lam ci ñaan yàlla ba noppi te barke bi yàlla defal na ko ko moo tax nag mu jël nag war suxni bi jaayee barakatal basmala waaye bépp ñagg-ñaggu xol ak bépp njàqare moo xam ne dafay muur nit ki rek yow suñu borom yàlla nag moo ko dàqal yàlla nag mu ci musal kon allah yow suñu borom doo ngi sël yàlla na ko julli ala sayyidina ci kaw sunu sang wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadim turam di muhammad wa sallim yàlla nga salbal ali ci moom ala ali ak ñoñ wa sahbi ak saabaam yëpp war suxni yàlla nga wërsëgale bi jaay ci darja yonent bi barakatal basmalati barke bi nekk ci bismillahi rahmaani rahim wa farij yàlla na nga dindi yàlla na nga wuññi xam yi sama ñagg-ñagg xol wa xam yi ak sama njàqare biha ci e, barke boobu nga xam ne mooy barke bi nekk ci bismillahi rahmaani rahim bu la neexee xaayo nga delloo ko ci basmala gi wan faan wan faax ni na ma jëriñee fii daarin tabaarakallaahu biyaa ci euh, barke boobu nga xam ne moo nekk ci basmala te nga wërsëgalee ma ko yàlla nga ma ciy jëriñ fii daaree nii adduna ak àllaaxira wan fax ne yàlla ma jëriñee biyaa ci barke boobu nga xam ne moom nga ma wërsëgalee ci basmala fii daaree nii adduna kon mel na ni xaside gi jeex na ndax wëy yi moom mi ngi yem rek naqdiya tamim wal tusalli bi salaam alay bil ali wa ansin lil xitam kon jotaay bi dañ koy jeexle rek dégg nu sëriñ bi ci suratul fatiha buñ delloo ci téeréem boobu nga xam ne moom la tuddee maj ma nuurey ni ah, dégg nga fii fawaa'idi daarey ni nga xam ne moo li dajale ñaari leer yi adduna ak alaxira nga xam ne lépp luy njëriñu adduna ak rek ma nga ci téere boobu téere boobu lépp luy njëriñ ak adduna ak ma nga fa bi muy nettali nag ci daanaka ci njëlbeen gi rek bi muy nettali max naa fatiha loolu lañ bëgg a rek incha allah bala ñuy yeggali xasida gi wax njëriñu Fatiha dañuy indi li xam ne waxal na ko boppam ca Fatihatul Kitab boo demee ci mañ mawoon nooray ni fii fawaidi daaray ni da nga dégg sëriñ mu ne faidatun fii sikri maxnal Fatiha mu ne lii kat ak njëriñ la ma def ko ngir tudd maxna Fatiha ndax qaala lahu taala wa laqad aataynaaka sabhan minal masaani sunu borom moo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko jox nañ la juróom-ñaar. dégg nga euh, juróom-ñaar yoo xamee ne tabaarakallahu masaani lañ maanaam fatiha mu mu leeral nag lu tax ñu tuddee ko masaani xam nga wala xadaat naka sapaan jox nañ la juróom-ñaar minal masaani mu ne nag wa sumiyatil masaani mu ne tuddee nañ ko masaani ndax li annaha tusana fi kulli salaatin mu ne ñaari rakk yu julli rek moo xam naafila la mbaa farata danga ko ci indi ñaari yoon moo ñu tuddee ko masaani yi lu ñu ñaareel la ci bépp juli bépp julli dañ ko da nga ko jàng ñaari yoon kanaa bam des wiitar ndax wiitar moom kooku euh, benn rakk la waaye bu dee safaa ñaari rakk la benn bu ci nekk da nga ci indi fatiha mais bu di julli salaatul wiitar nag kooku benn rakk la benn yoon nga ci indi fatiha waaye yeneen xeeti julli yëpp naafale yëpp ñaar sëlmal ñaar sëlmal benn bu ci nekk ñaar rakk yi da ci indi fatiha mu ne loolu moo tax na ñuy tuddee ko masaan yi sàppoon masaan yi waaye mu ne wax lam anal fatihata mustamilatun ala safi ayatin mu ne xamal ne Fatiha lamboo ne juróom-ñaari aya maanaam daal Fatiha mu ne yow mi may déglu juróom-ñaari aya képp la ñu ne ko waaw juróom-ñaari ay lan lay jëriñ mu ne naafiyaatin li abwaabi jaxanama mu ne dañuy dàq bunti jaxanama bunti safara yëpp ñaari ay yi boo xamee xarafam yi xam max naa yam lambo sunu borom daf lay dàqal mboolem bunt safara yi bado doo ci juróom-ñaari buntu safara yëpp. mu commencé nag ne boo ne alhamdulilahi rabbil alamina xam ko di ko setantal mu ne nafatil xaawiyata sunu borom dàqal la safara su ñu tuddee xaawiya ne ñu ne ko Serigne Touba lu tax ñu tuddee ko xaawiya mi ne summiyatil xaawiyatu xaawiyatan li annaha taxwi bi ahliha sabxeena xarifan mu ne li tax ñu tuddee safara su xaawiya ma adraka ma hiya naarun naarun adraka dégg nga adraka ma hiya naarun waaye boo delee ci gannaaw aaya jooju te mooy alqaariatu mal qaariatu wa ma adraka mal qaaria yawma yakunu naasu kal farasil mabsuus wa takunu al jibaalu kal hihnil manfuus alquran ne fa amaa man saqulan mawaasiinuhu nag kooku fa fi hisatin raadiya waaye wa amaa man xafat mawaasiinuhu fa ummuhu hawiya mu ne koo xam ne boo demee yowmal qiyaam dañoo peese ay jëfam ñi gis ne jëfam yëpp ay xofa xofa rek la balaasam bi daal dafa woyof mu ne kooku ko dëkk waayam na xam ne tàpp waay mooy jaxanama mooy foofu lañ koy këpp waaw ah, <laughs> kon xaawiya ci tur safara yi la dafa bokk ci tur safara yi sëñ Tuubaa nee na nag lu tax ñu tuddee ko xaawiya nee na diiru juróom-ñaar fukki at nee na day xaaweeku ko ak mboolem ñu nekk ci biiram ñi jëm suuf nga xam ne ña dugg ci biir safara soo ñëw xaawiya buñ ci duggee dafay gën a ko ak ñoom ñi jëm ci suuf diiru juróom-ñaar fukki at ñi yëg mbugal mu metti mu ne kon nag soo waxee bi rabbil alamin suñu borom dàqal la safara soo ñuy tuddee xaawiya mu ne boo waxee arrahmaani rahim takk max naam xam baat mu ne nafatil jahima sunu borom dàqala sawra su ñuy tuddee jahim mu ne maliki yawmi diina nag nafati saxeera sawra su ñuy tuddee saxeer soo xamee maliki yawmi diina ay xarafam ak lim lamboo max naam sunu borom dàqala sawra su ñuy sawra su ñuy tuddee saxeer mu ne waaye iyaaka naxbudu iyaaka nasteenu soo xamee ay xarafam xam ay max naam lam lamboo mu ne nafat saqara sunu borom dàqala sawra su ñuy tuddee saqara mu ne waaye ihdina siraatal mustaqim soo xamee ay xarafam ak lim lamboo ci max naa nafatil hutama dégg nga suñu borom dàqal la safara soo ñuy tuddee al hutama mu ne siraatal la si anam toon ay jooju soo xamee ay xarafam xam lim lamboo ci max naa nafat lasa suñu borom dàqal la safara su tudd lasaa mu ne waaye xayril maxdubi ali wala daalin soo xamee ay baatam ay xarafam ak max naa lam lamboo nafat jahannama al muhaddata li ahlil kabairi min ummati muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam allazina amanu walam yatubu mu ne su fekkee nag tabaarakallahu da ngaa xam xayril maxdubi ali wala daal dina lim làmboo maanaam ak baatam ak i xarafam sunu borom dàqal la safara suñuy tuddee jaxanama nga xam ne sunu borom da koo préparel ñiy def bàkkaar yu mag te duñ ko tuub te bokk ci xëytu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne gëm nañ waaye dañuy def bàkkaar yu mag yi te duñ ko tuub ñoom la yàlla préparel safara suñuy tuddee jaxanama Serigne Touba nag nee na saa boo xamee ne nag xam nga Fatiha lim làmboo xam ay max na benn bu ci nekk ay june daf lay tëjal ab buntu ca safara safara su ne tuddal na la ko léegi nag safara juróom-ñaari buntu rek la laxaa sapantu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsuumun noonu la ko alxuraan waxee mais bu dee aljana nag tabaarakallahu juróom-ñett juróom-ñetti buntu la. boo nee alhamdulilah ibnul xatib nee na boo waxee alhamdulilah alhamdulilah boo ko xoolee juróom araf la. mu ne sunu borom tijjil la mboolem buntu aljana yi juróom-ñett Serigne Touba teg ci mañ moo nooree ni fii fawaay di daaree ni nee na anal faatihata mustamilatun ala sabi ayatin mu ne ba tey xamal ne fatiha làmboo na juróom-ñaari aaya mu ne waaye nag arbaxun minha sanaun alalaahi taala bil majdi mu ne am na ñeenti ay yoo xam ne dañoo ñëw ngir tagg sunu borom ci tedd ngam tedd gi yàlla tedd daal ay juju daal dafa ñëw rek ngir tagg yàlla ci tedd ngam mu ne waaye wasalaasun minha duhaun am na ñett yoo xam ne moom ñaan ko tax a ñu ne ko waxal ñi yi nga xam ne moom dafa ñëw nekk ñeent di tagg yàlla mu ne awala sanaa in bu njëkk ci yi nga xam ne mooy aaye faata nga xam ne dafa ñëw di tagg yàlla mooy boo ne alhamdulilahi rabbil alamin nag mu ne alhamdu kooku mat wula bi kulli kamalin soo waxee alhamdu rek tagg nga yàlla ci bépp mat te wala yastahiqu ala alhaqiqati xayrullahi rabbil alamin lu ñuy tuddee ak mat moom kenn yeeyahut ko ca dëgg-dëgg ku dul yàlla muy borom bindee fi kon soo waxee alhamdulilahi rabbil alamin nag kon dangaa njëkk a tagg yàlla tagg nga ko ci bépp melokaana mat te nee na sëñ Tuubaa na mat moom sëkk kenn yeyoo kenn yeyoowut ko ci dëgg-dëgg ku dul yàlla muy borom bindi fi te yàlla moom huwa rabbuhum wa sayyiduhum wa malikuhum wa xaaliquhum wa raasiquhum wa muslihu ahwaalihim xaalan wa maalan fadlan minhu laa wujuban xale yi nee na yàlla moom nga xam ne nag mooy borom mbindeef yi mooy seen borom de mbindeef yëpp mooy seen borom waaye mooy seen sang de mooy ki leen moom mooy ki leen bind mooy ki leen di wërsëgal mooy mooy yéwénal seen mbir tey jii ak ëllëg ci mbaaxam rek waaye nekkul lu ko war wërsëgal gi mu leen di wërsëgal mbaa mu yéwénal seen mbir ëdduna ak alaxira loolu ci mbaaxam la rek may waaye nekkul loo xam ne laawu jóoba li nekkul lu ko war de mu ne nag baatab rahmaan mu ne boo xoolee ahama mutaxallaqan wa aqsu lafsan wa maxna ahamu mutaxallaqan mawlaana rahmatu haamatan xalal muminina wal kaafirina fi dunya wa maxna aqsu lafsan qaasatun bismi isla yu sama raxmaanu ilah wa rahimu ahamu lafsan wa mu aqasu mutaxalaqan maxna te yoonu jub boobu lii mandargal ne nit ki kat jaar na ci mooy lu mel ni yoonu xam-xam ak njub ngay jaar man faa tegee waaye nag nekkul loo xam ne yoonu réer ci ngay jaar man fay jaar dégg nga wala yoonu bànneex fa ngay jaar man faa jaar kon yoonu jub boo ko déggee yoonu xam-xam la ak njub waaye nag du nekk yoonu réer ngay jaar wala yoonu bànneex ba yegg fa mu ne suñu borom wax na ci alquran ne lii kat mooy sama yoon wu jub bi mu ne topp leen ko te topp yoonu jub bi mooy topp digleeg yàlla yi watandi ko ay teram yàlla wax na ne bu leen topp cël yi wala tati moom suba la mooy cël yi te nee na cël yi nag mooy yoon yi nga xamee ne moom dañoo bëri ay cël boo déggee cël mooy yoon yu ndaw ndawaan yi yi ngay gis xam nga yoon woo xam ne moom dafa tàlli tëli bu tàlli ñëpp xam nañ ko mais cël cël woo xam ne nag dafa dem ci dëkk bi bi jëm ci dëkk bi loolu mooy yoon yi nga xam ne bokk nag bokkut ak yoonu yàlla sëriñ bi nag nee ne wala xaasilu annaka li xam ci dëgg-dëgg yo mi may déglu isaa salaktal faja saa boo jaaree ci aw yoon alxamiqa wu leer naññi waj tanabta xamaa siwaahu nga wëttandiku lurut yoon wa cël woo gis rek wëttandiku ko jaar ci yoon wu leer nañ mi maa kaane min turxaati tariq lépp loo gis ci ay cël rek nga wëttandiku jaar ci yoon wu leer nañ mu ne saa boo defee lool talqaa rabaka da nga dajeeg sa borom de te wa anta naajin min xasaabil xariqi da nga mucc ci mbugulum safara mu ne saa gisee yoon wu leer daal masalan nga jaar ca bàyyi cël yëpp mu ne boo bàyyiwul yoon wa da nga yegg ci yàlla te da nga te da mucc ci mbugalum mbugal moo xam ne dafay lakke mu ne waaye wa in xaalaftal amra wa waqaxta fi tilka turuxaati waqaxta fil xalaaki ndax li na anna kulli tariqin alayha saytaanun daalun mudulun ka tariqi ahlil hawa wal bidihi Sëriñ Tuubaa nee na su fekkee nag da nga xam ne lii mooy yoon wu leer wi nga bàyyi ko fi jaar ci ñall ñall yi mu ne ci alkan rek ci ngay bi ndax mu ne yoon woowu kat nga xam ne mooy ay cël cël la def na nga xam ne saytaane yoonu saytaane la te seytaane dafa réer di réerale te loolu mooy yoonu ñi nga xam ne dañoo topp seen bànneex ak ñi nga xam ne dañoo topp lu ñu tuddee bidaa mu ne buñ ne siraatu buñ ne yoon ñaari yoon la dafa am yoon woo xam ne dañ ko tuddee hesiya ak maxnawiya yoon woo xamee ne boo ko lambee mën nga koo daj ak woo xam ne boo ko lambee dañ la koy wax rek waaye mënoo koo daj mu ne as siraatu siraataan ne yoon ñaari yoon la xam nga siraat mooy firi siraat jéggim siraat xam ngeen ko mu ne baatab siraat nag fii lañ ko jëlee rek moo ne képp koo xam ne jaar nga ci yoon yi ñi xam ci aduna te mooy yoonu siraatal mustaqim bu yowmal qiyaamee da nga mucc ci siraat mu ne asiraatu siraataani hisiyun la dafa lu ñuy wax hisiyun mooy loo xam ne soo ko lambee daj ko yoon wooy jaar ci aduna boo ko lambee daj ko am boo xam ne nag waa maxnawiyun la boo ko lambee doo ko daj mu firi nag lan mooy yoon wi nga ne boo ci jaaree ci aduna bu ëllëg yowmal qiyaam nga mucc ci jéggim siraat mu ne alhisiyu yoon wi nga xam ne soo ko lambee daj ko mu ne huwal mawduhu li ahli dunya moo yoon wax ne dañ koo tëralal ñooñ adduna ñëpp mu ne waaye wal maxnawi yoon wax ne soo ko lambee doo ko daj mu ne huwal mawduhu li ahli laaxirati mooy yoon wax ne nag dañ koo tëral ñeel ñooñ alaxira mooy xam nga siraat dañ koo gàcc ci kaw safara loolu nag mooy maxnawiya yoon woowu ku ne xam na ne boo ko lambee doo ko daj mais yoon yi di yoon siraatal mustaqiim boo ko lambee mën nga ko daj mu ne nag wa man salakal hisiya salima minal maxnawiya mu ne képp ku jaar ci yoon yi nga xam ne soo ko lambee daj ko muy yoon wi ci àdduna mu ne da nga mucc ci maxnawiya muy yoon wa nga xam ne soo ko lambee doo ko daj te mooy siraat te loolu nag siraatal lazina an'amta alayhim mooy yoon yi nga xam ne suñu borom xëy xëywe na lu mel ni anbiya yi lu mel ni awliya yi ñi am mat iman ba noppi jaar foofee ca yoon woowee mu ne siraatal lazina an'amta alayhim li muy firi mooy ay wafiqnaa ma dégg nga mahaha bi kamaalil imaani kamaalil anbiya wal awliya yàlla na nga ñu defal tawfiq ba ni nga defaloon kamaalil iman matu gëm yàlla ci say anbiyaaw bañ jaar ci yoon woowee ak awliya nangu ñu xéwale ñu ñu top seen tànk mu ne xayril maxdoobi alayhim li muy firi mooy ay laa siraata allasiina xadibta alayhim kal yahudi wa nasaara mooy yàlla nee ne xayril maxdoobi alayhim xam nga booy ñaan danga naan siraata allasiina anamta alayhim mooy yoonu awliya ak anbiya ku ne foofu la bëgg jaar mu ne waaye nag xayril maxdoobi waxuma ñi nga mere nag ñi nga xam ne nag mooy yahudi yoonu yahudi ak nasaraan yi nga xam ne yàlla mere na leen ñoom ñëpp waxuma yoon woom nag yoon wa ma wax moo yoon wa nga xam ne allasina anamton liim kamalil anbiya wal awliya yi fa yonent yi jaar ak awliya yi foofu laa bëgg a jaar waaye waxuma yahud ya nga xam ne dañoo jaar ca mboy ga ak nasaraan ya ba yàlla mere leen sànji leen te seen dëkkuwaay mooy safara mu ne kon buñ na xayril maxdubi lii mooy ay la siraata lasina qadibta alayhim kal yahudi wa nasara borom Tuubaa na wala daal yi nag li muy firi mooy ay wala saahilina du caagin way gëlëm ña te waxum ñoom mooy xaw mu nit ñoo xam ne addalahumu réeral na leen allahu yàlla an tariq li hidayati walis yoonu gindeeku ila tariq dalalati jëm ci yoonu réer kal muxtasilati lu mel ni ñu ñuy tuddee al muxtasilati wal jabriyati wal qadriyati mu ne wala daal ne li muy firi mooy kii ñaan dafa mel ne dafa wax yàlla na ko waxuma na nga jaarale ma yoonu ñi nga xam ne dañoo gëlëm te mooy ñoo xamee ne dañoo gëlëm biñ gëlëmee yàlla ci boppam réeral leen ñi wàcc yoonu njub jëm ci ak yoonu réer mu ne am na ci ñoo xam ne ñu ngi leen di tuddee al muxtasilati ak jabriyati al qadariyati mooy ñoo xam ne dañuy askanoo seen bopp ci lislaam mais sàggaan gu ëpp dañoo réer dañoo jaar weneen yoon doyloo seen bopp waaye du tee sax ñoom ñi ngi askanale seen bopp ci lislaam kon gis no noonu la firee saar yi Sëriñ Tuubaa wax ne ba tey mu ne Fatiha am na juróom-ñaari xaraf yoo xam ne dikkuñ ci Fatiha te loolu yëpp li ko waral mooy juróom-ñaari xaraf yooyu yëpp boo ko xoolee dafay tëkku aaya ya nekk ci biir alquran booy xool juróom-ñaari xaraf yooyu sax booy jàng aw man kaana mayitan fa ahyaynaahu ci suratul anam aaya jooju indi na juróom-ñaari xaraf yi nga xam ne suratul fatiha indiwul leen mu ne wax lam anal fatihata mustamilatun ala sairil hurufi ma hada sabhata hurufin manqutatin mu ne xamal na fatiha lamboo ne mboolem xaraf yi xaraf yëpp yi am ci huruful hijaiya juróom-ñaar fukki leetar yi ak juróom-ñett xaraf yëpp ñu ngi ci fatiha ma hada sabhata dégg nga ahrufin lu moy rek juróom-ñaari xaraf yoo xam ne dañ koo tomb te wahiya ñu ne ko xaraf yooyu nga xam ne dañ leen tomb te rotuñ ci Fatiha mooy yan mu ne al jiimu jiim wal xaawu ak xaawu wasaayu ak saayu wasaawu ak saawu wasaawu ak saawu wal faw ak faaw wasiinu ak siinu mu ne juróom-ñaari xaraf yii ñi ngi ci bit alquran am na ci benn ay juñ daje te mooy aw man kaana mayitan te juróom-ñaari yëpp suñ tubaa nee ne dañ leen tomb juróom-ñaari xaraf yëpp boo ko xoolee dañ ko tomb te ñëwuñ ci biir Fatiha ñu ne lu tax mu ne wa innama munniha min iyaaniha fiiha li an annahum nasaloo bil waxidi te waxu wasaru mu ne lu tax dikkuñ ci Fatiha parce que Fatiha lépp yërmande la ku jàng juróom-ñaari ay yi ñi tëjal la mboolem buntu safara yëpp tijji la mboolem buntu aljini mu ne loolu moo tax nag dikkuñ ci Fatiha ndax juróom-ñaari baat yooyu yëpp booy xool ay yi ci biir alquran dañoo ñëw ngir di tëkku te loolu yëpp aw aw xay lay tegtale moo tax na rotuñ ci biir Fatiha. mu commencé di leeral benn bu ci nekk mu ne woo ma xanaa jiim jiim amul ci Fatiha mu ne jiim gi nag manquusun mina mina tajjis yi ñi ngi ko jëlee ci ak boof xam nga nit ki bu sukkee dafa am ñoo xamee ne ëllëg yomal xiyaam bu ñuy jéggi siraat dañuy sukk boof ci safara mu ne loolu moo tax nag jiim gi nag comme dafa jëm ci wàllu tëkku rek moo tax suñu borom indiwut baatab dégg nga xarafu jiim ci suratul Fatiha mu ne woo ma xanaa jiim manquusun mina tajjis yi te woo woo suquutu xala rukubatayni mu ne boo boo déggee lu ñuy tuddee boof mooy rot sukk sa ñaari bëtoom ci biir safara mu ne loolu ñu ngi ko jëlee ci waxe suñu borom ji bi mu waxee ne wa nasru saalimiin fiha jusyan bu yowmal qiyaamee ña nga xam ne dañuy jéggi siraat am na ñoo xam ne seen jëf ju baax ji dafay mel ni melax ñi jéggi siraat ca sans dugal jina mu ne waaye am na ñoo xam ne nag nga xam ne dañoo weddoon yàlla dëkk ci mooy yàlla ci bàkkaar yu mag yi bu ñuy jéggi siraat dañuy boof ci safara mu ne wa nasru saalimiin fiha jusyan mu ne gi lu tax ñëwut ci biir Fatiha mu ne aay jooju dafa ñëw ngir di tëkku moo tax ñëwut fi mu ne ay sàq tey ne ala rukubihim fii naar yi sëñ Tuubaa na nag wa daabitul Fatihati ko takki xarafi Fatiha yi wa maxaaniha xam max naa yim làmboo yëpp kooku laa yesqutu koy ala rukubatayni fii naar yi bu yomal xiyaame buy jéggi siraat du bokk ci équipe ba nga xam ne dañuy bóof ca safara dégg nga mu jël na xaagi mu ne wa max naa xaay xam nga xaram dell ñëwut ci biir faate amul xaraf woo xam ne dañ naan kaala muy xaram dell dell ñëw ci biir Fatiha amul mu ñi ne ko lu tax sëñ Tuba mu ne manquusun minal xayba parce que xaa gi ñi ngi ko jëlee ci perte sooy lu suñ borom wax ne li qawli taala wa qad xaaba man dasaaha yàlla nee ne ki tilimal bakka bakkanam ci bakkaar yi ba bakkanam amutul roso ci def lu baax bakkan bi tilim na deena cëram yëpp deena moo yàlla rek ci lañ sax mu ne kooku xaabat wa xasirat nafsun afdahaha laahu mu ne bakkan boobu ko perte na bakkan la boo xam ne yàlla gàccal na ko mu ne kon nag ay juj dafa ñëw rek di tëkku te tëkku tëkku la aw xay la moo tax xarafu xaa xamut ci biir Fatiha mu ne kon nag wa daabitul Fatihati soo takkee baat yi nekk ci Fatiha xam baat ya xam xaraf ya wa maxaaniya ak maxnaa yi ñu làmboo mu ne laa tusiibuhu ba fil aaxirati perte googu suñu borom wax ne waxat xaab man dasaa mu ne suñu borom dal la musal ci yowmal xiyaam ba du jot mu ñëw nag ci racine gi wo max naa saa yi muy racine gi mu ne manquusun min salsalatil qalbi li qawlihi taala wa sulsuloo silsaalan sadidan ay hurikoo tahrikan sadidan mu ne boo gisee racine amul xarfu racine wooy ci suratul fatiha mu ne ñi ngi ko jëlee ci xol bu tiit ni muy rëng-rëngee li yàlla wax ci alquran ne wa sulsuloo silsaalan sadidan dégg nga dégg nga nga xam ne seen xol yi dafay tiit dafay jàq nit bu gisee loo xam ne da koo ragal mu tiit ca xol bi ci boppam dafay fërfëri fërfëri gu tar naka noon bu yomal xeer buñ dekkee xol yëpp dañuy tiit mu ne boo gisee nag racine googu rotul ci biir Fatiha mu ne loolu la mu ne nag dafa ñëw ci anamuk tëkku ci alquran moo tax rasin gi yàlla indul ko ci biir suratul Fatiha mu ne kon nag wa daabitul Fatihati wa maxaaniha laa tusibu salsalatul qalbi fil aaxirati mu ne bu yowmal xiyaamee képp koo xam ne xamoon nga faatiha xaraf yim làmboo ak maxnaayim bi ak maxnaaxam yim làmboo mu ne rëng-rëngi xol du ko jot mu ko ci alaxira mu ñëw nag ci ñetti tomb boobu nga ñetti tomb boobu nga xam ne moom la ñuy wax saa nga xam ne moom it ñëwut booy xool faatiha yëpp amut amut xarafu ñuy tuddee saa i nga xam ne mooy ñetti tomb boobu ñu ne ko sëñ Tuubaa lu tax ñëwut fii mu ne manquusun mina subóor yi dañ koo jëlee ci alkande toskore comme day tëkku rek moo tax yàlla indiwut xaraf boobu ci faatiha te waxuwal waylu loolu mooy alkande mooy toskore ndax li an na ahla naari isaa xaayu nool xasaaba sëñ tubaa nee ne waa safara suñ jàkkaarloo mbugulum yowmal qiyaama rafaxoo aswaatukum dañoo yëkkati seen baat ca kaw bil wayli di woo seen toskore yu naa doona yaa waylahum dañuy woo seen toskore ak seen musiba ci biir safara li la qawlihi taxaala laa tadduxal yowma subooran waaxidan wa doon subooran kasiran yàlla daf leen di yëjji buñ tollee ci mama boobu nga xam ne dañuy yuuxu di woo seen toskore yàlla naan leen bu leen woo benn toskore woo leen toskore yu bëri mu ne boo gisee nag xaraf woowu ñëw ci Fatiha ñett tomb boobu mu ne boo ko gisee mu ne dafa ñëw ci wàllu tëkku moo tax suñu borom indut xaraf woowu ci biir Fatiha waaye mu ne wa daabitul Fatihati wo maxaaniha laa yu si bo fii laa xarite koo xam ne takk na xarafi Fatiha yi ak maxnaa yi mu xam lim làmbo yëpp mu ne du ko jot mukk ci alaxira lu ñuy tuddee toskore mu ne waaye nag faa gi faa gi faa amut ci ci Fatiha ba mu jeex amut xarufu faa ñu ne ko sëñ Tuubaa lu ko waral mu ne manquusun dañ koo jëlee moom faagi minal firaari ci daw li li qawlihi taxaala ngir waxe suñu borom ci alquran falam yesidhum duha iya ila firaaran yonent yàlla noo bi mu wooyee nitam ña délla dolliwul leen lu dul ak daw ak foñ te daw moom ku koy def rek loolu ku jaaxle moo koy def kon dafa ñëw ci buntub tëkku moom aaya ja moo tax faa gi ñëwut ci suratul fatiha amul xaraf woo xam ne dañ naan faala mu ñëw ci bokk ci xarafi suratul fatiha sëñ Tuubaa nee na nag wa daabitul faatihaati wa maxaaniha laa yusiibuhu firaarun fii laaxirati ku takk xarafi faatiha yi ak maxnaa yim làmboo kooku bu yowmal xiyaamee du ko jot mukk lu ñuy lu ñuy tuddee daw ndax alaaxira ña fay daw ñëpp ñi jëm aljana duñ daw dañ leen dañ leen di escorter ñi jëm aljana mais ñi jëm safara kay ñooy daw mu ne koo xam ne nag xam na faatiha lim làmboo te di ko jëfee mu ne bu yowmal xiyaamee du ko jot mukk ak daw ci alaaxira mu ne daatar ju tooy ji nag amut boy xool daatar ju tooy wa max naa saa yi mooy dégg nga taataak bu xam ne dañ koo tomb mu ne booy xool xaraf woowu amul ci xarfi fatiha yi ñu ne ko lu tax mu ne manqoosun mina sulmi dañ koo jëlee ci ak tooñ ndax li xawli taxala wala tajri saalimiina ilaa tabaaran mu ne boo demee ci alquran yónnante yàlla noo bi nga xamee ne sunu borom digal na ko mu woo nitam ñu woo mu woo leen ba sonn nanguñ koo topp nanguñ koo gëm noo dal di wax yàlla nangoo na nga alal ñëpp bul bàyyi kenn ñoom ñëpp na nga leen dolli toskor ak alkande mu ne comme xaraf woowu nag dafa ñëw ci buntub tëkku buntu mbugal moo tax xaraf yi tàbbul ci biir xaraf fatiha yi ngir walaata ci salimin ila tabaran ay halakan mu ne waaye nag wa daabitul fatihati wa mahaniha laa yusibuhu halakun fil axirati mu ne comme xaraf woofu nag ñëwut ci fatiha te loolu moo ko tax dafa dafa ñëw ci buntu tëkku ak mbugal mu ne képp ku xam fatiha ak maxnaa yim lambo yëpp ak xaraf ya mu ne bu yowmal qiyaamee xalaku du ko jot ci alaxira maanaam alaxira du xalaku mukk mu ñëw nag jël lu ñuy tuddee xaa yi mooy xaram dell gi mu ne xaram dell gi ñëwut ba tey xaram dell amut ci biir Fatiha Fatiha bi mu jeex am na àllonk mais amul xaram dell ñu ne ko sëñ Tuubaa xaa lu tax ñëwut ci biir saar wi di Fatiha sëñ Tuubaa ne eh kooku kat manquusun la minal xawdi dañ koo jëlee ci xuus xuus wal xusraanu ak perta li qawlihi taala wal xasri innal insaana la fi xusrin ay innal kaafira la fi xusrin Sëriñ Tuubaa nee na xaram dell xaa yi boo gisee araf woowu ñëwut ci Fatiha dañ koo jëlee ci xawdi gi firi xuus mooy bu yowmal qiyaameen ñi nga xam ne ay yiiféer lañ perte dañuy xuus jëm safara mu ne comme dafa ñëw nag ci buntub mbugal ak buntub tëkku moo tax yàlla indut xaraf yi ci biir saar wi nga xamee ne mooy suratul Fatiha manquusun minal xawdi wal xusraan dañ koo jëlee ci baatub xuus ak perte te ku perte moom kooku moom mooy kat yi rek ñoo perte ak ñu yàlla moo tax nag sunu borom indiwut xaraf yi ci suratul fatiha ndax sunu baram wax na ne wal xasri innal insaana la fi xusrin nit ñëpp dañoo mel ni dañuy xuus rek jëm safara ci gàttal mu ne waaye nag ban bés ñi gëm ilal la sin am waamil salaati nit ñëpp boo ko doon misaal da nga naan dafa mel ni dañuy xuus jëm safara mu ne loolu moo tax xaa googu xaraf woowu ñëwul ci biir fatiha dégg nga te yéeféer ñëpp sunu borom nee na perte nañ perte gu rëy te xaa gi ci boppam dafa ñëw ci buntu mbugal ak buntu di tëkku ak buntu mbugal moo tax nag mu ne xaraf woowu ci fatiha kon nag wa daabitul faatihati wa mahaaniha laa yusiibuhu xusraanun dégg nga fii laa xarite mu ne koo xam ne nag xam na xarafi faatiha yi xam maxnaa yi mu ne bu yomal xaamee du perte mukk dégg nga waaye nag mu des nag xaraf wu mujj yi wa maxnaa siiri mooy siin si tooy si ñu ne ko sëñ Tuubaa siin si tooy ma amul ci faatiha yi mu ne hee amul fi xam nga lu tax ñu ne ko déedéet xamuñ ko mbàkke mu ne manquusun min sarari naar yi dañ koo jëlee ci ferñeenti safara yi ferñeenti safara li qawlihi taala tarmi bi sararin kal qasri ndax yàlla wax na ci suratul mursalaati nee na safara dëgg-dëgg bu yomal xaamee dafay tàkk def ñetti njubb ferñeent yi di sànneeku ci kaw ba mel ni pale ni muy rey a pale ni muy yëkkati ko te rëy te gudd lool safara bu yomal xaamee noonu lay sànneekoo mu ne kon nag dafa ñëw ci buntu mbugal muy wax ci mbiram safara mu ne moo na siin si tooy soo rotul ci Fatiha te Fatiha lépp yërmande la kon maa xuusun dana sànni bi sararin moom moom safara ay kal kalxasri ba mel ni ab ab pale tax bu mag waaye nag mu ne wadaabitul faatihaati amul problème wadaabitul faatihaati wa maxaaniha kay laa yusibuhu sararun fii laaxirati ku takk xarafi faatiha yi ak maxnaa yim làmb yëpp xam ko di ko jëfee kooku laa yusibuhu sararun du ko jot mukk ferñeent yi fii ci bit alaxira ferñeent yooyu du ko jot kon xaraf yi nga xamee ne ñëwuñ ci faatiha mu nekk juróom-ñaari xaraf benn bu ci nekk lu tax ñëwuñ ci sëñ Tuubaa ne hikma bi lenn rek la xaraf yëpp boo xoolee ay yañ nekk dafay tëkku ay yam nekk yëpp dafay tëkku te Faatiha nag juróom-ñaari aaya la dafa ñëw ngir génne nit ñi ci safara génne nit ñi ci buntu safara yi yóbbu leen ci buntu aljana yi moo tax ay ju aaya dafay tijji dafay tëj buntu safara aaya ju dafay tëj buntu safara aaya ju dafay tëj buntu safara mais nag aayam yëpp ak xorofam yëpp dañoo ñëw ngir xattali nit ñi dugal leen aljana ndax boo ne alhamdulilah rek juróom-ñetti xaraf la soo ko waxee Ibnul Xatim nee na ñi tijji la mboolem buntu aljana yi fu la neex nga dugee fa. kon Serigne Touba lii la indi ci xasida googu nga xam ne mooy Majmahun Nurayni fii Fawaa'idi Daarayni ñi talxis ko mu nekk loo xam ne bind bu am solo la incha allahu taala danañ yeggali xasida gi waxtaanee nag njëriñu Faatiha ci boppam tabaarakallahu ba ñëpp mën cee gis seen bopp incha allahu taala